loo xamante ne ci actualité ñu jox leen ko en un temps record jërë ngeen jëf ci ànd bi nga xam ne ànd ngeen ko ak Jotna Media Group